Zigdon door ko nag ak nag euh, tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal xam ngeen ne kon lu toll si junni yu tegal ñeenti téeméer ak ñaar fukk ak benn ci ay doomu aadama la ñu tànn defal leen test bi si ñooñee ñu gis ne kon juróom-benn fukki ak juróom-ñeenti amee nañu jàngoro ji waaye ñu gis ne it ci lim googee ñaar fukki ak juróom-ñeenti dañu di ay cas contact dañu jaxasoox ñu amee jàngoro ji waaye amuñu benn cas importé naka noonu it cas communautaire tey ji ñu ngi toll si ñeent fukk ñu nga xam ne ni xamuñu fu ñu jëlee jàngoro ji kon nag fii ci diwaanu Dakaaru euh, bu ñu koy xayma ñaar fukk ak juróom ñaar ñoo amee jàngoroy cas communautaire googee nga xam ne si la ñu ko jëlee waaye nag ñett sa Mbuur ak sa Thiès ñaar ca diwaanu Kolda benn ca Kanel boobu ngir Mboro Vélingara Ziguinchor kon nag yeneen diwaan yi fukk ak ñett ci ay cas lañ leen wàññal kon nag juróom-ñett fukk ak ñett ñu amee woon jàngoro ji faj nañu leen bën wér mu mel ni ñaar fukk ak juróom-ñett jamono ji dañoo lot ba nekk Sowétas kenn ñàkku si bakkanam ni ñu ko nemmee koo démbax tey waaye it euh, bi mbas mi duggee Sénégal ak léegi fanweeri junne juróom-ñeent yu tegal juróom-ñeent fukk ak ñett euh, la gis ne kon ñoo amee jàngoro ji ci lim googee fanweer yu neex euh, euh, juróom-ñaar yu tegal juróom-ñaar téeméer ak juróom juróom-ñaar faj nañu leen ba nu wér junnax juróom-benn fukk ak ñett ñoo si ñàkk seen bakkan ñaar téeméer yu tegal juróom-benn fukk ak ñaar ñoo ñoo nekk jamono ji si lali hôpitaux ñoo ne fecc war a euh, soxal nag wàllum vaccination bi maanaam ña ñax ko fii ci réewum Sénégal ñu ngi leen xayma ci ñetti téeméeri junneex juróom yu tegal ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ñeent ñu àddu euh, jëmale ci wàllu mbas moomee sa Médina si seen lëkkaloo ak nag waa Croix Rouge jàppale ne lu toll si euh, ñetti junni yu tegal euh, ñaar téeméer ak ñett ci ay dajale ngir nag ñaax askan wa si nees mën a def ba mucc ci jàngoroy coronavirus gi doon gis nañu ni kon mu ngay gën di wàññeeku waaye terewul nag maire ba ci boppam daal di say profito sàkku ci askan wi ñu bàyyi xel bu baax ne kon jàngoro jaa fi ba léegi Bamba Fall li mu day kàddoom. dëgg la am na mesure ñu levé mais Covid takkatuñu masque daanaka wala ñu koy wàccee waxante nañ ci gën a la xam ne feebar bi jeexagul ndax am na dëkk Europe yoo xam ne tey ñu seen troisième phase mu gën a métti ci ñoom ñun nag bu ñu dem ba naan bu ñu yëgoon teel a fàggandiku nañ ko def léegi Médina dina bokk ci commune yi nga xam ne mooy nekk commune pilote croix rouge commune phare croix rouge commune modèle croix rouge croix jàppale Sénégal ndax croix rouge deful ay bu dee kàddu yu tukkee ci Bamba Fall maire bu commune bu Médina sa caaro yi de jàppale ne kon Caaroy sur mer googu ay nappkat ya nga xam ne ñett sa la ñu toll woon dañu demoon gëti ñeenti fan ñu leen di seet te gis ñu leen woon ñoom nag mujj nañu. leen gis loolee ni ki démb la sa palmarin alhamdulilah kenn ñàkk si bakkanam te diwaanu Fatick lañ leen fore benn bateau euh, bu euh, Cap Vert moo leen for bu nga xam ne dafa nekkoon suñuy wax kon nag kenn ñàkk si bakkanam alhamdulilah wàllu politique sa diwaanu Kaolack leen ne njaw mu nga wéy di fa desu xambin ci ña nga xam ne ñoo fare ci euh, parti bi di APR mu mel ni kon gannaaw nag njiital parti justice développement bi la yoon nag ki nga xam ne ab député la woon nekk ko ci Benno Bokk Yaakaar moom mooy yëkkati kàddu di ñaaw lu doxalinu yenn ci ay naataangoom nga xam ne dañu nekk di woote ay manifestation yu nga xam ne nii képp ku fa dikk rek import export la maanaam dañu lay neexal jox la koppar xuchandis wala ay biére ngir nag nga ñëw teew sa sa loolee si boppam dañoo jàpp ni ah, jàppalewul benn yoon jiitu réew mi El Hadji Malick Gueye ay kàddoom ak Alioune Kane ndax nit ñi bu dañoo ànd moom. waruñ ko wax lu ci dëgg waruñ ko defal lu ci dëgg waruñ ko bàyyi bu bënt waruñ ko bàyyi ay ko nax naxal bi dafa yàgg lool. bon olof ñaay dafa wax ne mucc na dimb dana tax dimb nax kon ma koy ñaan mu bàyyi xelam ci nga xam ne ay dirisa xel la ñi nga xam ne yàq rek mën a tax nga xam ne euh, nax ko a tax a jóg ak nax suñu daro naxal ko jeex moo jaay raxma deful dara ci dëkk bi deful dara. lu dul naxe ja ay kaar sant ko ay nit joxe xaalis ñëw jëral ko ji xool façon boobu rek day activisé jënd ay journal ñuy bind à la une ci loo xam ne du dëgg du dëgg dëggul fekk loolu lañ béy mu sax fii loolu lañ béy mu nekk fii moo tax ñu intérêt de jëppee ne ko meeting boobu ne meeting bu bu mu basé wu ci meeting ay ca tàggat yaram lañu yàddu jëmale jaraaf jàppale ne kon am na ndamam bu njëkk ci phase poule yi jëm ci coupe CAF gannaaw nag ba mu daanee ñaari bal ci dara FC Salisas bu Burkina Faso loolee démb la ci dibeer ji sa benn dëkk ñaari gaar équipe bu Médinois bi jàppale ne kon ña dugal seen bi moo di Albert Lamane Dieng ndax nag Youssou Paye euh, ndam loolee tax na kon équipe bu Cheikh Gueye bi de euh, mu mel ni kon benn point donc moo dox ci digganteem ak jiite mbir yow di Fassing euh, moom moomee nga xam ne manees nañu wax ne ay point témbo naax bu étoile bi sportive mu mel ni kon ñaar ñooñu sax warees nañu dese fukki fara benn ci weeru avril bi ñu dëgmal ci jongante retour bi ca tëngee ci jàppale ne taskatu xibaar yi nga xam ne Euh, ñoo doon seekax joxante ci wàllu football ak nag waa yi ba dañoo nërmee lu ñaari bal ci benn la ñu leen daan équipe bu journaliste yi que que nekkoon seen ab coach maanaam entraîneur moo di Nasib Sagna bu wal fajiri ak Daouda Correa bu Le Soleil waaye nag euh, ndaje moo mais sa stade Ngalandou Diouf lañ ko doon amal ngir nag waajal euh, joŋante tournoi vétéran yi nga xam ne ñu ngi ko tuddee woon maire ba di El Hadji Daouda Niang final boobee nga xam ne ka ko moo di ASC Libou gi moo dóor ASC Thiawlène benn bal ci dara Daouda Correa moom la ñu toftal ci maire bu Tëngéej ay kàddoom date bi ñu choisir parce que 4 avril dafa nekk une date symbolique. beneen motif de satisfaction bi mooy ki ko parrainel muy le de la ville de Rufisque euh, ñëpp xam nañ ne dafa delloo jeunesse bi ñu këlëb tey jii ñu ngi def jéego yu maga a mag pour que à partir de la semaine prochaine public bi mun a disposer de la tribune découverte man dama foogoon ne. taskatu xabaar yi mënuñu football mais gis naa ne vraiment euh, am ngeen équipe bu football bu am solo ma si gën a kontaan loolu mooy que dafa renforcer solidarité bi am entre euh, ville de Rufisque ak taskatu xabaar yi xam ne dañ nekk si biir dëkk bi jaajëf mu nekkoon ak tënk ci ay xibaar Mame Mbaye Ndiaye la woon ci àddu gi sama présentation Mame Mbaye Ndiaye c'était à l'instant le point Covid du jour avec le directeur de la prévention au niveau du ministère de la santé et de l'action sociale Mamadou Ndiaye donc sur à savoir à Dakar 27 cas communautaires et pour les autres raisons 13 c'est-à-dire 3 Kanel Popenguine Mboro Vélingara Ziguinchor 83 guéris 28 cas graves 0 décès à ce jour le Sénégal compte 39 093 euh, testés positifs 37 767 guéris 1063 décès enregistrés 262 sous traitement euh, concernant donc euh, les vaccinés ils sont au nombre de 305 364 Et puis Tiaroy-sur-Mer, des nouvelles sur les trois pêcheurs saisonniers de cette localité portés disparus depuis quatre jours à bord donc d'une pirogue en fibre de verre. Ils ont été finalement retrouvés en vie à Palmarin, dans la région de Fatick, par un bateau pavon pavillon donc à verre. Plus de peur que de mal. La Croix-Rouge euh, sénégalaise a mobilisé volontaires euh, euh, dont, la riposte contre la Covid-19. Malgré la tendance baissière, la commune de la Médina et la Croix-Rouge donc poursuivent la sensibilisation. D'ailleurs, la commune a abrité les assises de la Croix-Rouge donc ce week-end, occasion saisie pour inviter tous les maires du Sénégal à redoubler d'efforts pour vaincre la pandémie Bambafal que nous écoutons avec Nanko Bakayoko. Lors de cette pandémie, dans pour l'assistance aux malades. Lors des émeutes aussi, vous aviez vu les risques que la Croix-Rouge a pris. Dans d'autres pays, ils sont à leur troisième étape. Il faut l'éviter quand même. C'est vrai que nous sentons un relâchement. Les combats de lutte, les matchs de football, les cérémonies, les concerts, on est en train de tout reprendre. Mais quand même, la maladie est toujours là. J'invite la population à encore respecter les mesures barrières et accepter aussi les À l'instant, Bamba Fall, le maire de la commune de Médina, en politique encore une sortie pour fustiger l'attitude de certains membres de la mouvance présidentielle. À après le leader du parti Justice et Développement, l'ancien parlementaire et membre de Benobok et Akar condamne la politique menée par certains responsables politiques qui consiste, selon lui, à faire croire à une massification fausse en organisant des rassemblements politiques dont des motivations pécuniaires. Et là, Maligé est bëgg a tromper Sine Saloum waaye bëgg a tromper président de la République. Certains leaders de la mouvance présidentielle de Kaolack animent des meetings tout à fait vide de vrais militants de Benno Bokk Yakaar. Ils bernent en réalité le chef de l'État Macky en lui faisant croire qu'ils ont réussi à massifier le parti dans le Saloum pour le séduire, alors que c'est tout à fait faux, ce qui est très grave pour le futur de Benno D'ailleurs, un grand meeting a été organisé ce vendredi par la mouvance présidentielle, un rassemblement politiquement vide puisque la plupart des personnes ayant assisté à celui-ci ont monnayé pas qu'il se fie à ce genre de rassemblement. moo tax ñu intérêt ci jóg na ne ko mitin boobu mitin dara bu mu baasiwul ci mitin Parlons sport à présent. Diaraf a obtenu sa première victoire en phase de poule de la Coupe de la CAF après donc sa victoire 2 buts à 0 devant FC Salistas du Burkina Faso. Ce dimanche à Thiès, les Médinois se sont remis à des buts d'Albert Lamandjienne et Youssou Avec ce succès, l'équipe de Sergueï est à un point du leader des Spatiens et compte le de points avril prochain euh, pour le match recours. La ville de Rufisque a sa revanche sur l'association des journalistes de Rufisque. La presse rufisquoise a essuyé donc une défaite devant les agents municipaux sur le score de 2 à 1. L'équipe des journalistes était coachée par le duo Najib Sagna de Walfadri et Daouda euh, du journal Le Soleil. La rencontre s'est tenue au stade Ngalani Diouf prélude de la finale du tournoi des vétérans qui avait pour parrain le maire de la ville d'Audagnan. Finale a Suivons la réaction de l'adjoint au maire d'Aouda Correa. C'est une euh, journée euh, qui a une double signification. Elle coïncide d'abord avec la fête nationale de l'indépendance, ensuite euh, Elle honore euh, le premier magistrat de la ville d'Autofisque. Les deux réunis créent un enthousiasme les Rufisquois, pour la jeunesse rufisquoise, surtout à un moment où nous sortons un, peu d'une période de, stress très très fort. Vous savez que les activités sportives étaient presque gelées. Le tournoi du maire euh, correspond un peu à une période de dégel pour la jeunesse et pour les populations. Je ne savais pas que les journalistes savaient de Rufis qui a compétit qui est en face des employés de la mairie, ça renforce justement euh, ce sentiment de solidarité et de fraternité.